waroon teg si si suuf donc la justice bu leen arrangé elle est indépendante bu leen arrangé wut kii di président de la république am na droit intervenir si dossier boo xam ne mu ngi euh, entre les mains de la justice est-ce que loolu aussi du benn malhonnêteté nga xam ne yéen nga xam ne nañ koy doxal si espace public bi aussi. merci beaucoup Ndiap question bu pertinente nga posé mais dama ko bëgg danga may may rek ma leeral loolu parce que sénégalais yu bari ñi ngi koy wax am na ay journalistes yoo xam ne tamit dañuy laaj question boobu lu tax. yéen bu leen neexee ngeen ni président de la république dafa war a génne loxoom ci justice bi ba noppi bu leen neexee ngeen ni buñ ko ñaanee ñoom marabu yi daa war a bàyyi kon maanaam moom daa war a dugal loxoom ci biir justice bi. Mhm. loolu xam ñu koy wax tax comprendre ñun suñu position mooy ñun président Macky Sall mii avant muy jël nguur gi. Mhm. dañoo waxtaane woon ci assises nationales yi dañoo waxtaane woon nu ñuy soppee institution réew mi président la république di nommé aux fonctions civiles et président de la république di contrôler assemblée nationale. Mhm. président de la république contrôler justice bi. président de la république yore gouvernement kon mooy buur parce que président Sénégal moom buur la ndaxte lépp moo ko yore wax léegi nag ñu ne woon nan ko soppi soppi bañ waxoon ba moom bi mu ñëwee nguur gi mu jox ko euh, le la le le président. Euh, Amadou moxtar Mbow nga xam ne maa ngi euh, profité di ko félicité ci cent ans yi mu am yàlla na ko ci yàlla tegal Euh, euh, at yu baree baree bare mu continuer gunge. Mhm. Sénégal euh, man dama jàpp mooy président Macky Sall bañ ko waxee moom bi mu jëlee nguur gi dañ doon xaar mu def loolu. ñun bu ko defoon kon duñ dugal parce que d'abord je rappelle que les khalifes généraux. Mhm. les marabouts de manière générale muy kilifa diine yi danoo bokk ci société civile. société civile xam luy définition muy ñëpp ñi nga xam ne mën nañoo joxe seen kàddu ci réew mi te ñoom xëccoowuñu nguur xeexuñu ko yore nguur. Mhm. kon nag muy syndicat yi muy kilifa diine yi. muy association yi muy collectif yi muy coalition yi citoyenne yi ñun ñépp ñun ñooñu ñooñu ñun ñooy société civile kon marabu yi mënuñ leen cee génne kon nag marabu yi ñun ginnaaw bi ñu leen joxee dayo bi ñu am parce que loolu diine moo leen ko jox du ñun te ñun dañoo gëm suñuy diine ñun duñu ay nasaar ñun duñu ay tubaab yoo xam ne dañuy taxaw fee naan diine amul njariñ ñun dañoo am suñuy ngëm-ngëm waaw léegi nag su fekkoonte ne président Macky Sall lañ waxante woon ca assise ya def na non may ma ma tubaab bi gëm na de aussi tubaab bi aussi gëm na diineem. non non non su may wax mooy tubaab bi ñoom seen seen dañoo teqale diine ak état ñoom dañu ne ak république ñoom loolu lañ gëm maanaam. est-ce que nekkul loolu moo tax ñoom wàllum problème justice doo ko dégg aussi. waaw waaw léegi nag moom laa lay wax. léegi nag aujourd'hui xam nga ñun li ñuy réclamer président Macky Sall moo fa nanguwul a jëm parce que ñun li ñu waxante woon ci assise xam la. dañ ne bis boo ñu bés bu président de la République génnee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci assises yi te président Macky Sall ma nga ca bokkoon naam nee na signé na avec des réserves. Mm-hmm. dañ ne woon léegi yow ku yoreeti réew mi justice bi danga nga ciy génne sa loxo xam nga ñoo ci génne sa loxo mooy ni président de la République nekkee mm-hmm. euh, euh, le chef de la magistrature suprême mm-hmm. maanaam moom moo yilif ñépp ñi nga xam ñoom ñooy ay magistrat léegi nag magistrature suprême boobu nga xam moom moo ko jiite. moom président Macky Sall dañu woon bu ñu gañee élection yi moom da ciy rocci loxoom xam nga lan mooy rocci loxoom saa ñu am une république des juges mais ñu am président la république boo xam ne du moom mooy nommer les magistrats yi nga xam ñooy ñoom ñooy àtte du nommer ñi nga xam ni ñoom ñooy toppee comme procureur bi du nommer ñi nga xam ni euh, ministre de la justice dañ dañ koy dindi du am maanaam justice bi day moom boppam day nekk day nekk benn institution indépendante boo xam ni kenn du ko wax fii ngay jaar loolu bu amoon président de la République génn ci loxoom dootul nommé procureur amatul ministre de la justice magistrat yi di àtte ci seen cëggal guy am seen indépendance nga xam ne président de la République mënta jël benn magistrat parce que daa tëj ku den ab jegeñaaleem mu yóbbu ko ci région bu sori pour jaay ko doole maanaam magistrat yi am le principe d'inamovibilité bi ñuy kaas li nga am ne UMS moom lay kaas ne dafa bëgg ñoom waa UMS mooy magistrat yi dañ ne dañoo bëgg ñu jox leen seen indépendance maanaam ñu moomal seen bopp seen dogal justice président de la république sax bu amee ab jegeñaaleem wala soxnaam wala ku mën doon bu ñu ko bëggee woo woo ko te duñ tiit parce que du leen mënal dara waaw loolu lañ bëggoon réforme boobu président Macky Sall def ko mu bañ loolu su ko defoon soxna njàpp bi tey kon tey kenn du wax kilifa diine yi nañ intervenir xamul tax bu boobaa justice bi day nekk une justice mais comme loolu àggaguñ ca loolu lañ bëgg te ñoo ñaan am président de la république bu ko mën. boo xam bu ñëwee day day day dëggal boppam wax ni man du ma du ma ma aar kenn damay yemale Sénégal yëpp. man ak ñu ànd ak man ku fi def loo war a def justice bi lay woo daal ni justice léegi demalal demal leen seen bopp daal di def réforme yi ñu war a def pour que mu seppi loxoom ci justice moom président de la république bu boobaa marabu yi dootu ñu intervenir wax ji jeex na mais loolu nag comme amagul situation bi mu nekk mooy président Macky Sall moo toog le 31 décembre njàpp bi tey Sénégal yëpp ko dégg mu ne yenn su ma ko jotee. ministre de la justice mi nga xam maa ko nommé ak procureur nga xam ñoom man maa leen di nommé ñëw débbal ma ab dossier ni ma dossier bii dañ koy war a topp ma xool ne kooku bu ñu ko toppee mën naa taal réew mi man maa naan leen teg leen bii ci suuf kon réforme boobu ñuy wax amagul léegi nag comme amagul ñu ngi toll pour le moment ci président bu ñu rëcc ci biir justice bi di doxal ku ko neex tëj ku ko neex tëj kon kay am nañ droit ne nag xalif généraux yi intervenir moo am pour le moment bu ñu bëggee ñëpp génn ci. dañuy bàyyi justice am indépendance totale président de la république génn ci syndicat yi génn ci partie politique yi génn ci kilifa diine yi génn ci ñëpp génn ci ñuy doxal ci ku amati problème booy dem justice doo tiit doye loolu moo amagul. donc loolu boo amagul kon mun nañu wax ne carrément l'agneau du sacrifice wala le dindon de la farce moo nekk euh, euh, la population lambda nit ñi nga xam ne amuñ tur voilà ñoom moom bu ñu defee dara amul kilifa diine wala amul benn politicien bu mun a intervenir. non foofu xamal tax dama ko waxee noonu. ah wa non non non jàpp dama ko waxee noonu. xamal tax dama ko waxee noonu. non c'est c'est loolu chaque fois ñu dégg fi carrément nit ku ñu accusé de de de de de manière injuste ñu tëj ko chaque fois ñu gis ne carrément koo xam ne dafa sàcc ginaar ñu tëj ko amul xalifa généraux bu ko intervenir ni un président boo xam ne mun na jël teg dossier bi si coude bi. donc euh, ouais. au final la justice euh, sénégalaise c'est une justice à deux vitesses. à deux vitesses. waaw léegi may ma ma tontu ci loolu xam nga man loolu xam nga tax dama ko waxee noonu justice sénégalaise bi bu fekkente ne du dossier politique juge yi dañuy àtte ci yoon man loolu laa gëm. non je suis pas d'accord. non may ma ma ñëw rek à chaque fois ñu condamné fi nit boo xam ne luñ koy tuumal def ko. non non bu may wax waxuma waxuma waxuma les les les dénis de justice. mooy ñi nga xam ay nit lañ. ay ay nit lañ magistrat yi ay nit lañ mën nañoo juum ci àtte mais dama ne dossier yi nga xam ne politique lalu ko magistrat yi soo leen xoolee dañ koy teg ci yoon. parce que loxo euh, président de la république du ci dugg mais dossier yi mag yi nga xam ne ñoom moom président da cay am intérêt yooyu lay dugg mais gi nga ki nga xam ne dañoo jàppante ci quartier yi te politique lalu ko magistrat yi suñ koy atte dañ koy atte ci indépendance bu leer naññ parce que ñun suñuy magistrat dañoo xarañ. loolu mooy dëgg mais fan moo am problème mooy dossier yi nga xam ne président de la république da cee am intérêt. Mhm. parce que dossier yooyu nga wax bu doon viol ci contexte boo xam ne ñaar ñi seq viol bi. Mhm. président de la république jàppante wu ca kenn amul intérêt ci kenn ñu tëj ko wala ñu tijji ko du ci dugg c'est su ci duggul magistrat yi dañuy àtte àtte bu leer nañ mais bu dee dossier te lay wan ne dossier bii du dossier bu simple waa léegi dossier yooyu ngay wax ki ci ginnaaw mais wala ki nga xam koo jiñ viol. te moom du nit ku am tur du nit koo xam ne si gêné na président de la république wala ñim àndal waaw dossier yooyu xamal tax du am problème mooy ñi ñaar ñi jiñante ku ci nekk day toog këram yow euh, boo xam ni ki jiñ ni man dañ maa dañ maa siif dañ maa violé moom ay ay mbokkam mun ñoo jot ci moom. gànnaar waaw may ma rek may ma non non non dama lay wax rek pour wan la ni kon pour wan la kon ni c'est-à-dire que dossier bi tant que amul relent politique. tant que lalawul ci ginnaaw laxasuwu ci bu ci politique laxasuwul rek magistrat yi dañuy def seen liggéey normal mën nañoo juum nag mais fin parce que ay nit rek lañ ñoom mën nañoo juum fin bi waaw ñu wax ci leneen loo xam ne euh, xam naa ni soxal na la euh, peut-être tey yaa ngi fi toogee euh, pour membre fondateur coalition citoyenne le peuple mais aussi dafa mel ni aussi danga nga bokk ci euh, association bi nga xam ne euh, ku mel ni professeur Cheikh Oumar Diagne ñoo ko sos nga xam ne démb ñëw na am fi waxtaan bu am solo euh, ànd sàmm jikko yi hmm. si je me trompe nga bokk hmm. ñoom ñu am benn pétition bu am solo bu ñu def teg ko jox ko yi nga xam ne mooy xalifa généraux yu Sénégal yépp ñoom ñu ne ils ont fait presque tous les départements yu Sénégal yi par rapport ak la criminalisation yi nga xam ne mooy de l'homosexuel fii au niveau du Sénégal hmm. yow projet boobu ban taxawaay nga si am. jërëjëf soo na Ndiaye dama ciy duggee sax ci actualité. Mhm. parce que ku gis na démb ni journaux yi dañ ni. Mhm. Sénégal dafa nekkoon ci top ten bi. Mhm. ci démocratie léegi génn nañ ko ci. loolu sénégalais yi bëri ñu ngi dégg naam nag président Macky Sall moom nguuram day jaay doole liberté yi moom. da koy jéem a restreindre maanaam képp kum yaakaar na yow li ngay def arrangé woo ko rek da lay jéem a xañ li nga xam ne moom la sàrtu réew mi jox. kon loolu moom ci problème mu démocratie Sénégal dafa dellu ginnaaw ci nguurug président Macky Sall loolu moom ñëpp d' accord nañ ci. Mhm. mais beneen bi nga xam si moo tax ñu ne Sénégal génn nañ ko ci top ten bi mooy danoo jàpp ni Sénégal day bundu xataal ay góor jigéen. Mhm. loolu mooy critère majeur bi tax ñu génn Sénégal ci top ten bi pour teg ko pression. ah bon ah oui loolu moo am. nga teg ko si fan. no fi ma ko teg lu leer la. Mhm. ñoom ñi ko ñoom ñoom bërki euh, yàggul président Joe Biden nga xam ne nga doo ko nekk président États-Unis xam nga lu mu wax képp réew moo xam ni. pare woo pour bàyyi say góor jigéen ñu am sañ-sañ ci sa réew di def lu leen neex di fësal seen ngóor jigéen nga jàppale leen ñu am seeni droit loolu ku ko respecté wul États-Unis dootu la financé te dina taxaw xeex ak yow loolu Joe Biden wax mu leer nañ kon nag ñu leen jàpp mooy foofu xam nga luy jafe-jafe bi mooy góor jigéen ñi nga xam ne jàpp nañ ne nguurug Sénégal te pourtant sax na ñoo jàpp ne nguurug Sénégal mu ngi leen di jàppale parce que président Macky Sall keroog bi muy def discours am boobu nga xam ne tiitoon bi dëkk bi tàkkee te ñëpp waxoon nañu ko tegal bii dossier day ndaxte mën naa indi coow. mu xeeboon dossier bi dafa ne Karim Wade ni mu ko faagaagale woon noonu lay faagaagale euh, faagaagale ko xalifa sàll noonu lay ñëw faagaagale Ousmane sonk ñu ne ko ah Ousmane sonk du Khalifa Sall de Ousmane sonk du Karim bokku ñu dayoo. tolloowuñ tamit yaakaar bi sénégalais yi am ci ñoom. mais waaw may ma rek ca man je crois aussi ñu bëgg a jël benn nit boo xam ne voilà c'est un intouchable. aussi non non non man Sonko n'est pas un intouchable. moom sénégalais yëpp man man man xam man nee naa la man man bokkuma parti mais damay wax tamit ci dayo dayo dafa am. yow xam nga Ousmane du yow du man. non dañoo waxante dëgg attends attends rek dayoo dafa am non non ñun ñaa man ak yow ak moom ñooy am ay droit Khalifa Sall ak moom ak Karim Wade ñooy am ay droit mais xam nga lu wute dayoo am na certes mais ci kanam justice non non non non waxuma ci côté boobu waxuma ci côté boobu dama ni maanaam ñee ñépp a xam ne dañ leen a jaay doole génn leen ci élection yi 2019 loolu lañ ko bëggoon a wax ne ko boo ko bëggee def 2024 coow lay indi parce que Ousmane xale yi ñoo ko yaakaar gëm ko xam nga ñu gëm ko pas moom gëm ko en tant que Ousmane Sonko nit xam nga lu tax xale yi topp Ousmane Sonko daa daa indi yaakaar da leen a wax ni système bii nga xam moo fi nekk. Mhm. ñuy ñuy pasar pasaree sunu alal ab ministre ngay dem buntu këram fekk fa lu mat fukki oto juróom ñu jël sunu alal di ko pasar pasaree di jënd ay oto yu rafet di seen i gel yaa may dégg. di jël suñu ay licence de pêche di ko wanteer xale yi di dugg ci géej gi di dem di mbëkki di dee ci géej gi lu mat juróomi téeméeri xale dee Sénégal ci ay mbëkk alors que ñun yàlla may nañu lépp ñu jël corruption bu métti ger guerre bu métti Sénégal li mu yor ci alal lépp ñu koy jël di ko di ko di wisaare ci ay ci ci ci wax caaxaan ak yëfi caaxaan loolu système boobu nga xam ne danoo yàq suñu réew nga xam ne kenn gëmatul dara loolu lépp ñu yàq jikko yi loolu lépp la Ousmane wax ne bu ñëwee da ko fiy jëlee. mooy système bi nga xam moom la wax ni moom lay xeex waaw loolu moo tax xale yi topp ko xale yi am yaakaar gëm ni kii bu ñëwee daan am liggéey bu ñëwee réew mi dina neex ku bëgg a añ da nga añ ku bëgg a reer da nga reer ku bëgg a faju da nga faju ku bëgg a jàng da nga jàng loolu la xale yi yaakaar ci Ousmane Sonko moo tax ñu topp ko du leneen. Mm. kon nag ku ko bëgg a yàq xale yi dañuy taxaw fipp moo tax Ousmane Sonko bi ñu defee discours am ne leen ah projet bi nga xam ne moom ngeen ma toppee de moom la président Macky Sall bëgg bëgg a bëgg bëgg a nërmee la léegi nag taxaw jàmmarloog moom moo ci des résistance xale yi taxaw résister président Macky Sall dellu ginnaaw pour la première fois depuis président Macky Sall mi ngi doog a dellu. donc kon yow yaa ngi dëggal ko nit ñu naan Ousmane Sonko moo moo moo tax xale yi wàcc ci mbedd bi. mais moom moo violence bi yëpp. dama non non violence bi.